bismillah gouvernement bi de ah! nee na mastata ah lu waaye am indil gaaw termine yéene kaa waa président Macky Sall moom ñaata la joxe looloo jar a laaj gis nga fukki fan ak juróom ci weeru mars day waaw bi ñu gën a ah, roi Maroc bale buuru Maroc ba oh, Mohamed VI waaw daa joxe woon nag ay santaane gouvernement marocain boobee xamal leen daal nañ leen taxawal ab kees benn fond la waaw lu waaye am indil ngir ñu jàkkaarloo nag ak mbas mi la di jàngoroy coronavirus yo bu boobaa nag kon la marocain yi daal di jóg tee waaye moom buuru Maroc boobee Mohamed a dugal di génnee lu milliards yu toftal juróom ñaari téeméeri millions ak juróom ñaar fukk ak juróom benn laa la wax 118 milliards 776 millions la ilaha illallah buur ba dong loolu la jox de waaw ca la gaañ a commencé nag au fonctionnaire ya kilifa nekk ca nguur ga daal di jóg entreprise yu mag ya public ak privé député ya daal di jóg officier supérieur au gradé maanaam takk der yu fort ya waaw ñëpp kon daal di jóg nag daal di kon dugal seenu xaalis kon ca xeex boobee Maroc ci lu mooy waaye fii ci Sénégal de waaw Macky Sall ci boppam kon moo waroon a joxe exemple moo waroon a njëkk a joxe nag laa la wax waaw waaw doon président loxo ci poos waxuma la sax yàlla jëkkoon xeewal bi nga xam ne kon daal dina ko koy may dee te dara terewu ko nag kon ngir mu dimbali ci askanam waaw waaye Macky Sall tamit am na caisse noire dëgg la te xaalis boobee tamit nu ko neex doxalee waaw Macky ana lu mu joxe tribune yéene kaay ne moom président Macky Sall moomee waaw la jël Sénat bi daal di koy tas ne xaalis ba dee xeex wàllum conseil des collectivités territoriales gi lée farata la waaw waaw waaye tamit daal di tas conseil économique social et environnemental daal di tas commission nationale pour le dialogue des territoires daal di tas au conseil du dialogue social dëgg dama ne la gis nga gouvernement boo xam ne la fa nekk ci ay ministre kon tege na téeméer portefeuille ak sans portefeuille waaye doublon yi nga xam ne kon ñoo am ci administration bi nag looloo jara wax la jara wax direct na mooy matériel médical bi nga xam ne kon ma wala am trafic la moo jaaxal ñëpp la ñi kay mooy feebar bi fi mu yegg léegi ubbil critique yéene kay nañu gis nga fii ak une waaw Sénégal nag dana xam kon ban tànk lay feccee ci jàngoro jile nga xam ne lim gi nag léegi yegg na foo xam ne nit ñi commencé nañoo di te ñu ngi xam le ne tamit am na ci ay cas xam ne doy doy waar la soreetuñ bakkan yu rot de soreetuñ bakkan yu rot de mardi tali sur quotidien en tout cas mbir mi yéegee ni de ragalu na lool les ko yéene kaa malade yoo xam ne day fi mu nekk ni lée maari day taali maari day taali a lan moo taxoon ba demul woon ca ba le témoin yéen kaay ne dama ne bii mooy bu njëkk ñu ngi xamal ne am na ñaari kaa garaaw Sénégal xelam a ngi tey dee ci bakkan bu rot l'observateur ne en tout cas médecin sénégalais wax nañu dee nee nañ kaa yi bu continuer di am waaw sénégal fi nar a dee moo nar a ëppale france italie ak espagne la ilaha illallah ay waay déet waay nañ ñëpp dem defi test loolee mënta nekk fii sénégal de woo am léegi am nañ juróom-ñeenti cas allahu akbar benn immeuble boo xam ni quarantaine nañ ko Medina ñaari sénégalais dee nañ ca espagne ak ca italie termine yéene kaa yi réew mi quotidien est ce que nag léegi du ñu ci biir kër yi lée wala test ñëpp rek le jamono ji màggee ni la koom-koom dama ne bët yi xonq na bët yi xonq na jaaxle dugg na PIB 2019 ba wàcc na 5 virgule 2 pour cent ñaar fukki kaay yu bees ñaari kaay yi garaaw yéeni kaay ma jamal jaa ne xanaa xamoon leen na ñu bëree bëri dañoo yaakaaroon ne gis nga jàngoro ji lee ah yi nga xam ne day ña fa nekk seen loxo jotul seen ginnaaw mbambax gaa gëb la ga waaw waaye ndeke doomu jàngoro ji day quartier yi neex yi rek la sawar ay ngor ay almadi ay mermoz ay fan waaw rëccuñu xam ne ne daal koy gis Thiès ab immeuble boo xam ne R plus 4 la ci Médina dañ koo quarantaine libération yéene kaa ne am na dix membres ñoo xam ne ci benn famille ñu fukki nit wàll nañ leen ci Dakar allahu akbar dama ne la Dakar rek am na léegi téeméer ak juróom Abdoulaye Diouf Sarr waaw mi ngi préparé benn lal de ak maire yi les écoles yéene njiital maire di Alioune Sall day waaw nee na maire bu ne na nga joxe benn million yenn maire yi nee nañu waaw ñenn ñi ne déedéet la Karim Sow yéeni kaay gi ne en tout cas ci biir kër moom la ñuy laam-laamee Moustapha Diakhaté ci 24 heures waaw nee na commune yi nga xam ne ñoo nekk ci région Dakar lañ war a tëj ñi lañ war a tëj confinement Thierno Bocoum ci 24 heures waaw nee gis nga lii feebar bii du cinéma de déedéet karoon cinéma ba njàpp ko de Vox Populi nee na docteur Samba ñi ko plainte sax dañoo bëri libération yéene kaay na waaye day ministre Abdoulaye Diouf waaw daal ne faux médecin bi de waaye la enquête ba génnee police doy na waar waa ji léeg-léeg mu nekk gynécologue léeg-léeg cardiologue léeg-léeg cancérologue eh way samba am na benn nag complice bu ñuy laam-laamee jàpp nañ ko ay société ak ay clinique yoo xam ni faux médecin bi xaw na leen a rey waa virement bancaire yu RTS yi nag tey docteur Samba grand place de assemblée nationale de am moo du coronavirus les ko yéene kaa ne la vote loi ba kay du am public de du am journaliste ñetti président de groupe yaa fay ministre ba tamit ñaari collaborateur ñoo koy gunge le soleil yéene kaa ne gis nga feebar bi de nu ne lay feeñee ci am na yeneen yuy feeñ yu bokk la sa baat yi miti wala sa sidit yi jam wala sa bopp yi Dakar Times de xanaa xamoo ne organisation mondiale de la santé de yëglu woon na fi de waxoon na fi lu leer de mën naa dem ba ci juróom fukk jàpp juróom-ñetti fukk cinquante wala quatre-vingts cinquante wala quatre-vingts millions yu dee maa la ko wax laa ilaha illallah leegsi ko yéene kaa ne marché public tey ak corona ja waaw Mohamed Boun Abdallah Dionne tey ma ngay imposé nag ay marché yaama neex gré à gré lam def kay koppar ga war naa toll ci téeméer ak fukk ak ñeent ci ay milliards laa ilaha illallah <laughs> moo tax gis ngeen ndimbal lii jàppal ma jàpp gi da ngay dem ba naan nguur gi ku leen jox sa xaalis yàlla boo perte sax ah boo paree ma ne la yi ñuy dégg ci ci mim réew bu dakkul Sénégal nar a ëppale ay néew waa France Italie ak Espagne du samay wax l'observateur moo ko bind yéenekaay bi mi ngi ko jëlee ci ay médecins yu nekk fii ci réew mi bokk ci ñoom docteur Saliou Falilou Samb bu ordre des médecins du Sénégal nee na coronavirus bi du virus buy rey a 100 pour moo gën a lawet Ebola bi waaye bu ñu seetaanee bu mu jur ay cas garaaw jàngoro ji mën naa tëral ci réew mi bakkan yu ëpp yëma tëral ca France ca Espagne ak ci Italie fii ci Sénégal l'observateur mi ngi ñuy xamal ne bilan bu mujj bi ñu jote démb ci waa ministère de la santé mooy bi coronavirus bi duggee ci ak léegi téeméeri doomi aadama ak juróom benn fukk ak ñaar ñoo ko fi amee ñu jot a faj ca ñoom ñaar fukk ak nekk ci traitement ci ñooñee ñuy traité waa ministère de la santé wax nañu ne am na ci ñaar ñoo xam ne seen situation compliquée na ba yegg ci lool Les Échos ñu dégg ci wax ji moo tiital askan wi ñu bëri ba ñu yégée ne ci ñu ñuy faj am na ci ñaar ñu nekk réanimation boobee ba léegi seenu fi toogatul le téemo ñu mel ne ku naan ko ñoo yey ne guléet ba covid 19 bi duggee ci réew mi ak léegi ñuy wax waxi cas grave li Sénégal di ragal nag mooy ñu dem ba yegg ci ne am na ko coronavirus bi bi nañu nañu laal bant ne doonte ñoo ngeeg téeméeri cas ak juróom benn sutura ne ba léegi dégg gu ñu ko fi faatu ndax coronavirus bi waaye ñaari cas garaaw yooyu ñu wax démb moo tiital nit ñi vox populi nañu démb ci altine ji moom coronavirus bi dafa rakkaaju ci réew mi ñaar fukki cas yu yees la ñu am ak ñaar yu garaaw libération nañu fii ci Ndakaaru am na fi fukki nit yu corona yoo xam ne ñoo bokk benn famille bi ñoo bokk kër gu ñu dëkk bokkoo nit ci cas yi ministère de la santé doon suivre l'observateur nañu juróom-ñeenti na benn immeuble boo xam ne dañu koo quarantaine ber ko dugg kenn du génn ndax dañuy ragal ne corona baa nga fa jot na covid 19 beeg ni muy lawee ci réew mi ragal nañu mu yokk kàdduy docteur Abdoulaye Boussa ci journal bi mu fay xam le ne fii ba weeru avril wi di teru kuye bu séntu ay cas importé ci réew mi mu di nit yu corona yoo xam ne bitim réew la leen corona bi toppee Macky maintenant l'heure est grave noonee la ko journal Source A bindee ci xët mu njëkk président Macky Sall lay bàddali ne jamono ji waxtu waa ngi gën di yéeme ndax dégg nañu démb yeneen a ci assemblée nationale moom président Macky Sall assemblée nationale ci mode corona ak bu ca nekk da nga dànde sa morom loolook loolu leneen mu di confinement total la Sénégal gis na ne ca la ñu jëm mu di tëj nit ñi i kër kenn bañ a génnati ba coronavirus bi di fi jugee ñu jugee ci te dem ci bi nee ak coronavirus bi mi santaane ñu joxe moom la journal la tribune bëgg a xam moom ñaata la joxe ci ñuy joxe seen seen alal ngir ñu xeex coronavirus bi soleil national nee nañu ci boole waa complexe éducatif daarul iman ga ca Fass Mbao docteur Mohamed Abi Boulassi ma ko jiite journal bi nee nañu yëkkati na koppar yu takku teg ko ci loxoy sous préfet bu Caaroy boole kook ànd ak waa daarul iman gi yëpp ñu sóobu ci sensibilisation Le Quotidien nañu ñu war a gën a ñooy dawalkati kalandoo yi ndax li ñuy aaye yëpp ci transport interrégional bi ñoo nga ca enquête der yi teg nañu leen loxo ci samenu couvre-feu bi njëkk savonu Marseille Alfé seen gamme opaliya ak seen marque de référence Sens ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm naka noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM bokkoon na ci ne ay xibaar gis-gis bi nga xamante ni moom la Seydi Gassama am ci bu fekkoon ni pexe amatul lu may confinement dig tëju ràpp ci réew mi euh, nguur gi muy sàkku ci ñoom bu boobaa ñu taxaw na mu waree ci wàllum dund ak nekkin njaboot yi ko soxla euh, loolu mooy gis-gisu directeur exécutif Amnesty Sénégal Sénégal nag ci wàllu jàngoro coronavirus ak tolluwaay la ñu nga ci wàllu lim ci téeméer ak fanweer ak ñeent yu ne euh, kër docteur ñuy faj jamono yi Euh, ñaar fukk yu bees démb loolee nag nepp record lu fi mosul am ba fii ci wàllu lim wàllu xibaar bokk na ci lu jëm ci ay bés bi nga xamante ni def nañ ko boobaak léegi ci couvre fa euh, fii ci réew mi euh, ñenn ñi nag ñu ngi ciy profité ci wàllum insécurité yi di cambriolé toji bitig ak yi kër moo waral ban lim Dakar ñenn ñee buñ sañoon police di gën a teew ci gox yenn yi ci waxtu yenn yi Fatick moom gendarmerie gàntal na fa pexe ñenn ci transporteurs yoo xamante dañ doon fexe rawale nit ñi di leen tukkiloo dëkk ak dëkk ca ku ne xam nga ni fan yi dana ko daal di tere aj ba jëmmi jamono jamono mbuur eh, ci wàllu xibaar yeneen eh, fitna gu fa yeewu démb ca dëkk bi di bala bugu askano foofee ñoo doon jàppanteek takk der ya dañoo àndul ci projet bu nu fa nas jëm ci wàllu mbay ca eh, bërëb boobee ñu ne ba fii seen jur di fa fore Abdoulaye Diop ba nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi leen ñaanal kenn lu jàmm ci kanam tuuti seen émission daan coronavirus ci kaw xeex bi ñu nekk ngir jële fi jàngoroy covid 19 bi di coronavirus sumari point di seen site de en ligne mi ngi sàkku ci ñëpp ñu wàccoo ak digleeg tegtal yi ñuy joxe ngir moytandiku jàngoro ji ak lu koy lawal di raxas loxo yi saa su nekk ba mu set wecc ak ndox ak saa